non xam nga loolu la euh, article 37 constitution Sénégal. mooy une charte réunie. dafa wax le président de la république nouvellement élu. fait une déclaration de patrimoine. mu teg ci conseil constitutionnel Il rendre public. une déclaration de patrimoine elle est destinée au public. parce que le conseil constitutionnel am obligation de rendre ko public.